salaamaaleykum mbokk internet yi safo 24 actu yi tey jii nag ñu am mbégte di leen jukkil actualité people yi ñu daal di koy dooree ci Samba Sine ñu gën ko xam ci Kouthia bu télévision Futurs Médias moom Kouthia nag ñu gis ne dafa amoon problème ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Mbaye promotion ba sax moom Mbaye gisatuñ ko woon ci télé bi mu defoon fi nag benn sortie wax son différent ak Kouthia Kouthia nag daal dina ci euh, ñëwaat ndax fan yi gis nañ moom Mbaye promotion mu def annonce euh, benn émission à la Sen TV moom Kouthia nag li mu ci xamal waa Sénégal 24 2024 mooy que ni euh, moom digganteem ak mbay du ci sori euh, waaye nag li mu mën a wax daal mooy que ni émission Kouthia école la te école ni muy doxee mooy que ni nit ñi dañuy dugg ak di génn. ñu dem ba tey ci Birima Ndiaye moom Birima Ndiaye nag ginnaaw attaque bu mu attaqué woon Pape Alé Niang Pape Alé nag euh, ñoom ñaax ay coow juddu woon na ci seen diggante ndax ginnaaw kàddu yu ñagas yi nga xamante ni Pape Alé Niang yëkkati woon na ko jëmale ko ci Birima moom Birima nag ginnaaw entretien bu amaloon ak waa di koy jëmale ci kii di Pape Alé Niang nee na ndax euh, chroniqueur war na mel ni Pape Alé Niang day laaj itam ndax journaliste mandu est-ce que waru ko joxe information à temps réel du ci yokku du ci wàññi ñu dem ba tey ci seeni scène di artiste comédien nekk itam acteur euh, dans la série Mayacine ak Dial moom seeni nag wax na ci euh, président de la République bu Sénégal mu président Macky Sall moom nag ginnaaw ay kàddu yu mu sekkoon ak Sénégal nee na yaayam sax daf ko tere ngir muy wax ci politique bi yi waaye dafa am lu ko metti jëmale ko ci président Macky Sall ndax lam leen gëmloo woon en 2012 ba tax moom mu voteel ko gisu ci dara. ñu dem ba tey ci Fallou Dieng di artiste moom Fallou Dieng nag ñu gis ne fan yi amoon na polémique digganteem ak Pape Ndiaye Thiopet moom nag lim ci xamle moom Fallou Dieng mooy que ni Pape Ndiaye Thiopet rakkam la te moom moo ko yar donc gisul lan moo war a mën a tax ñoom ñaar ñu jote loolu daal Fallou Dieng xamal nit yi ci ginnaaw ak ginnaaw ab entretien bu mu accordé ak waa Sénénews ñu tey ci Baba Hamdy moom nag muy artiste chanteur compositeur et producteur en même temps ñu gis ne nag moom am Hamdy jot na liggéey ak artistes yu ci bari euh, ba ci Abiba mi nga xamante ni moom nouveau talent la ñu gis ne nag euh, ñoom ñaar liggéeyatuñu bu ñu sukkandikoo ci waa Sénégal Baba Hamdy nee na ñoom ñaar liggéey lañu ñu actuellement nag liggéeyatuñu waaye jotewuñu dara dañ ko teg lépp ci wàllum professionnel wax na aussi sur sa relation ak Viviane Chidid nee na kii di Viviane euh, waaye itam su fekkee Viviane pare na rek ngir liggéeyaat ak moom moom itam pare na ñu jeexalee ko ci euh, Sadio Mané joueur de Liverpool ak Mohamed Salah mi nga xamante ne moom itam Liverpool lay euh, football ñoom ñaar nag ñu gis ne dañoo jote woon ci euh, terrain bi ginnaaw bal bu ko waroon a paas ak bu mu raté ñoom ñaar nag ñu gis ne amoon nañu problème Sadio Mané nag li mu xamal waa Sénénews mooy que ni ñoom ñaar jotewuñu dara et que tey jii la ñu nekk xarit c'est juste que daf ko doon wax dëgg rek donc fi la ñu yem ak yéen ci actualité people yi di leen jox dig daje ba beneen yoon fii ci 24